wasaadafahoo te fiiroo nag moom mooy dajee nag moom xus la mu doy raxas sa njàpp ga aji aw doy na ko su fekkee li nga fàttee woon a raxas ci sa sangum janaba bi ab xar-xaram la wala sa loxo la wala ab tànk la maanaam ca fañ war a jàppal waaye gannaaw si nga bi nga demee génn ca sangum janaba jàpp raxasaa nga ko ca su boobaa yéegal na ko su fekkee ne da nga caa génn ba pare maanaam raxasuloo ko euh, dem julli ja tusubaar bi nga jullee tusubaar ba pare avant ngay julli saan door a gis maanaam diggante ba bi ngay jàpp njàppal tusubaar nga raxasaale ko ca dana ko mën a yóbbuwaale waaye su paree nag tusubaar jële rek nga nga nga nga nga nga julli woon ca sanga sanga sangaay manqué la moom rek ngay baamu waaye kii moom njàppali yóbbuwaale na ko bu ko defee léegi mën ngaa julli tàkkusaan dara du ca nekk saa nga dem di jàppaat ngay dem di maanaam sangu jawaat ak yooyu kon nag li nga fàtte bu nekk ci pér ci di njàpp ya ba ngay jàpp nga jàppaalil ko rek loolu moom dugg na ke jërul nga di ko defaat wér na donte la ñu ne ba nga koy def sax da nga caa yéene woon njàpp rek ndax su boobaa toj moomu nga yéene sa njàpp danañ ca ca jéggal yéegalaale ci maanaam janaba ja kon nag sangum janaba ngoog ak la ca xaju sa sunna yo loolu jeex na léegi nag li xaraam ci ku xamee janaba moom lay wax si dafa am loo xam ne boo xasee xam janaba dañ koy xaraamal ci yow nga def ko moo tax mu ne laa yexilu du dagan lil junu bi ñeexel ko xamee janaba du xoolul masjidi tàbbi jàkka képp ko xam janaba xaraam na ngay dugg ci jàkka ja ndax sobe nga sobe warul dugg jàkka moo waral boo meesoo sa mees yooyu jàllar bi ku maanaam bi ngay sangu janaba nga takk ko wala sax saxaas nga ko waaye tooyut waroo dugg jàkka ja ndax ba tey sobe nga wala qiraatul qur'ani daganut muy jàngal qur'an ku yore janaba du jàngal qur'an ñu ne faw mu ne ha ilal aaya te ndere ab laaya wa naxwiha ak lu niroog ab laaya ni ki ñaar ba ñett lu tax nga di ko def li tax awu si ngir muslu wa nax wi naxwihi ak lu niroog muslu ni ki gàggantiku gàkk wala defaral koo xam ne dafa yàq wala maanaam da nga xamoon ak mocc ak jiit wala mocc ak jaan goo doon na woon ci say maam wala say baay mu xam ay alxuraan yi ci nekk ñu indil la koo xamee dafa ko dal nga di ko mocc su boobaa mën ngaa jàngale aaya yooya nekk ca biir mocc ga fekk yaa nga xam ne janaba waaye lu dul lu mel noonu xaraam na bi maanaa nga yor janaba ba pare di ko defati kon nag sobe nga bul dugg jàkka sobe nga bul jàngaxal alxuraan lu dul ay aaya yoo xam ni muslu ak mocc ak gàggantiku yàq ak la ci xaju mooy tax nga di ko def léegi nag euh, loolu mooy tax nga di ko def léegi nag safaan nag ku yore euh, reegal la ak ku yore gësin jigéen bu yore deretu reegal wala mu yore deretu gësin diirëb li mu koy yore mën naa jàng alxuraan la ko ca neex waaye amul droit téye téere lu dul muy jigéen gu yore reegal daan jàngee ca daara ja ñi bëgg mu mokkal alquran wala mu bokk xal dara ci alquran kooku moom Malik nee na bu ko reegal gaaree mën naa téye kaamil bañ koy sasee wala téere ba di ko ca jàngal ñi ko jàngal mu di ko xool te fekk ma ngi ko téye waaye ku dul kooka amuloo droit téye téere fekkee da ngaa yore reegal soo yoree deretu gësin amoo droit téye téere alquran waaye nag am nga droit jàng alquran yow mi yoree deretu gësin muy njureel mbaa nga yore deretu reegal mën ngaa jàng alquran la neex donte kaamil bi ngay wàccee mën na waaye bul téye téere waaye ki yore janaba nag moom dañ ko tere ñaar yëpp bul téye téere bul jàng moom ñaar yëpp lañ ko tere lu tax ki yore janaba am na kartan ci mën a yëkkati tojam ma ndax moom dara doxut ci diggante yëkkati toj ak moom lu dul ndox moom boo xamee ndox rek ànd ak ñeme ndox ma rek mën naa dem sangu ji bu sangoo rek moom léegi laab na ko ñëpp kële nag moom lu mu sangu sangu bu doon téeméeri junne yoon la sangu ci bis bi tamit taxagul mu laab balay mën sangu mu wér rek mooy deret ja moo léegi nag li mu ñàkk kartan ci mën a yëkkatim toj mi moo tax ñi may ko mu jàng alxuraan tere ko mu téye kaamil kële nag li mu am kartan ci mën a yëkkati tojam bi moo tax ñu téye ko ñu tere ko téere tere ko tamit mu mu jàng alxuraan te ñaareel ba deretu régal moomu nga xam ne léeg-léeg mu am ci yow fukki fan ak juróom ci yenn ci jigéen ñi loolu lépp bu ñu la teree ne la bul jàng alxuraan kii wuréy mën na laa faat ñaareel ba boo nekkee ku gaaw a fàtte lu bëree bëri mën ko fàtte ci alxuraan rawatina nag bu nekkee deretu njuréel nga xam ne li gën a yàgg ci moom mooy diir distance bi mooy ñaari weer léeg léeg nag mu dagg ci lu gën a tuuti ñaari weer rawatina sax bi euh, médecins yi xewee léegi tabarkàlla seen xereña gi ba mu feeñee ak léegi léegi da gis nit ku am doom fukki fan rek deretam dog waaye daal distance boobu moom de diggante feeg ba muy dogee amuloo droit maanaam téye kaamil wala téye téere waaye mën ngaa jàng alquran ndax soo ko defut ci wuré dana la faat te boo yombee fàtti lu bari man nga koo fàtti kon nag ki yore janaba rek moom lañ tere mu jàng moom lañ tere tamit mu téye ab kaamil waaye may nañ ko ab aaya ngir muslu ak lu ko niru ak maanaam mocci ak gàggantiku yàq ak ya ci xaju mu des nag bii ne walaa yi li man ñeel ki nga xam ne laa yàq diriw xattanut alal maay jëfandikoo ndox baari di mu sedd an yaatiya muy dikkal saw jëtawoo soxnaam sax faw mu ne a xataa yu idda mu préparé al alata jumtukaay jumtukaay nag mooy gaz wala maanaam bu xamul wala wala sofaas bu xamul yooyu mu wut këriñ gu mën a booyalee man caa teg wala matt yooyu yëpp ci jumtukaay la képp koo xamee na nii ndox mi mi ngi fi waaye dafa sedd jëmewoo ko sa soxna si nga fas yéene sëy ak tamit ñemewut ndox mi kon nag amul leen droit sëy nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo dangeen di dem ci tiim kon yéen li leen tax a tiim yéen ko fàggul seen bopp bala ngeen a mën a ànd rek day fekk ngeen ut ndox mu ngeen war a sangoo bu fekkee ndox ma ñemewu leen ko ngeen ut jumtukaay boo xam ne mën naa tàngal ndox ma ba nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo rek mën a sangu ca ndox ma waaye bu loolu xamut kay yéen ngeen ànd kon li leen tax a tiim yéen ko yéen ko yéen a ko def ñu ne faw ñu ne lu dul ku gëjee ak soxnaam xam nag dafa tukki gëj ci soxnaam lool ñëw ci jamonoy sedd mu ragal ndox ma soxna sa ragal ndox ma te bu àndut ak moom mën na koo lor wala mu lor soxna sa su boobaa nag moom sharia diinay jàppandal la te lay wax ne la ànd la sa soxna su ngeen ñemee ndox ma ngeen sangu saa su ngeen ko ñemee hut ngeen huti jumtukaay saa yu ngeen ko amee tàngal ko sangu loolu lépp nag su waxtu wa jotee te fekk yëpp amut ngeen tiim julli diina ji diinay jàppandal la loolu kon loru loru gaa tax ngi daganal la loola ak daruraat tubixul maxsuraat waaye nag bu loru loru googu amut moom gëjoo fa ah bala ngaa ànd ak moom nag demal nga wuti jumtukaay boo xam ne moom ngeen war a tàngalee ba pare su ko defee nag bu ngeen paree rek mën a jëfandikoo ndox mooma sangu ci li ko mooy la leen yóbbu ci tiim yéen ko yéen ko yéen ko yéen a ko sabablu danaay wax nag ne ku yàlla dénk soxna nga gëj fa bis bu ay moom def nga ay su fekkee toog nga weer gëj fa boo da ngeen weerante su boo amul sens dañ leen kon nag soxna yi gëj fa moom gënut moo tax mu ne walaa yi joosu du dagan li man ñeel koo xam ne laa yaqadiru attanut alal maa yi ci jëfandikoo ndox baari du bu sedd an yaatiyo muy dikkal saw jotoo soxnaam sax faw mu ne xattaa yoo idda ba tax mu préparé al alta jumtukaay jumtukaay nag lu yaatu la fur na buñ def këri ñang ca fa maanaam matta nga ca gaasa nga ca sa savaas bu baaxee tamit lépp ci jumtukaay yàlla bokk ñu ne faw mu ne ah ila an yaxtalima ndare ku gént kooku de moom fala chea de daraal di koy war tëdd ba guddi gént rek ne da ngay sëy ak soxna yàlla dogal nga xëy gis sa tubay ji am lu ca nekk kooku moom kenn la wax ne la demal xuti jumtukaay door a bi ngay tëdd xamoo da nga géntam déet kooku moom saa yoo ñemee ndox ma rek ngay dem sangu bu waxtu wa jotee fekk ñemee woon ndox ma tiimal nga julli soo tiimee julli nag yàlla dogal nga ñemee ndox ma te waxtu wa passé gut da ngay baamuwaat sa julli nga ca waxtu wa bu waxtu wa passé nag dootoo ko baamooti kon nag loolu rek mooy saxatte bi ci yooyu su ko defee nag kon ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon boobu bunt moom leer na bi ci des nag mooy ñaari laab ñoo am laab ak ndox ak laab ak suuf ndax doomu aadama dañ koo bind ci diggante ndox ak suuf moo waral ci ëllëg tamit ci lay dellu ci suuf la lañ la bind ci suuf ci ngay dellu ci suuf tamit bu ëllëgee ci ngay dekkee moo waral tamit ñi defal la suuf ëllëg nga man di ci laabee di ci jaamu sa borom naka noonu tamit ndox foo gis nit ñaareel gis fa ndox ba tax na bokk na ci liy teyal dund doomu aadama te mooy li tax muy dund tamit ndox ci la bokk moo tax tamit ndox moomu tamit bokk ci li nga xam ne moom lay jëfandikoo man caa jaamu boromam. gannaaw nag borom al axdari yu bu mu jeexalee ci laab ak ndox la bëgg a dugg ak ñun ñi nag ci laab ak suuf laab ak suuf googu nag lay wax ne muy muy tiim. moo tax mu ne faslun lii day teqale wax fii tayamumi ci tiim waye tayamamu dana tiim al musaafiru aji tukki ji fii xayri masiyatin ci tukki mu dul mooy yàlla wal maride ku feebar ñoom ñaar ñëpp mën nañoo tiimal li faridati ñeel julleeg farata aw naafilatin ak julleeg naafila képp koo xam ne dangay tukki te sa tukki ma du tukki mooy yàlla yàlla dogal nga ñàkk ndox ci sa biir tukki ma walla sax xam nga ndox waaye danga ragal ne boo ko jëfandikoo hee yow ki sa bopp mar mën na laa gaar ci sa yoonu tukki wi wala boo ko jëfandikoo hee li nga ànd ak muy bàyyi ma di aw fas wala am xar wala bëy xataa ba ci xaj moom ci boppam mën na koo gaar am mar charia dafa lay wax jox ko xaj bi mu naan ko wala fas wi wala xar mi te yow bu waxtu jot julli jotee su ko defee maanaam nga tiim kon gis nga lislaam ku xormaal bakkan la ku xormaal luy dund la moo tax ñaareel kuy dee ak kuy dund lépp luñ xëccoo rek kuy dund lañ koy jox kañ ko ki dee moo tax nag kon boo tukkee tukki moomu yàlla dogal amuloo ndox ci sa biir tukki ma wala am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal sa sug feebar ak dolle ko feebar yéex a wér wala sax loolu lépp ragaloo ko loolu ragaluloo ko ca waaye boo jëfandikoo ndox mi danga nga mar wala bi maanaa li nga ànd mar su boobaa sharia wax na la ne la tiimal nga julli julli yëpp mën ngaa julli farata yëpp subaar takkusaan timis gee naka noonu tamit mën nga tiim nga naafila lu mel ni safaak witar ak yeneen yi nga xam ne bëgg nga koo naafila comme da ngaa nekk koy tukki ñaareel ba ñu ne nag tukki yëpp mu ne déedéet tukki mu dul mooy yàlla waaye saa yoo tukkee tukki moo xam ne tukkee mooy yàlla la mayetuñ la nga tiim moo xam tiim nga farata la moo xam tiim nga naafila la tukkee mooy yàlla nag lu yaatu la jigéen gu génn ci lu duhul ndigalal jëkkëram tukki feeg ba muy ñëwee ci mooy yàlla la ne kon nag boo jëfandikoo masalam lax dëri mi le ne kon waroo tiim kon xam nga ne li nga loolu bàkkaar bu rëy la nit kuy daw ay waajuram ci lu duhut seeni ndigal ci la ne di ko dox kooka tamit feeg ba muy ñëwee ci mooy yàlla la kon borom lax dëri nee na tukki ma bu ko ci waxtu julli dabee moom bu mu tiim ba ca tegu tamit ku xam ne dafa tukki ngir seetaani am po mu mun di doon mu dul ñetti po yu yonantu bi limoon lu mu bari bëri lu mu sori sori loo fa yàgg-yàgg kooku tamit borom lax dana ne bul tiim tukkee mooy yàlla la naka noonu jamono jay jaam di am jaam buy daw ab sangam wala maanaam surga buy daw liggéey wala bi maanaa koo xam ne dañ koo jël mu war a liggéey ci place waxtu wa jot muy daw kooku tamit ci ci ci mooy yàlla la bokk yooyu yëpp suñ ko jëlee yaatal ko dana yaatu su boobaa tamit ñooñu ñëpp borom lax dari ne duñ tiim ñenn ñeneen nag nag wax dëgg yàlla tiim nag ak yoro mbal la goo xamee na nii may nañ la ko ci teewaay may la ko ci tukki kon nag su boobaa tukkeem moy yàlla du tax bi ma maanaam nga ñàkk koo def moom kay xam nga bakkaar bu mag ci tukkeem mooy yàlla moom a nga sóobu waaye nag du tere bu waxtu jotu julli wa jotee moom mën ngaa tiim rek nga jullil ko loolu ba tey gis-gis la ci yenn ci fuqaaw yi ci ibnu qaasum ci ñooñu la bokk moo tax kon waaye tey moomu dana tiim almusaafiru aji tukki yépp mu ne fii xayri masitin tukki mu dul mooy yàlla wal mari doo ku feebar ba nga xam ne dafa ragal ne bu jëfatikoo ndox mi jële ko doole ku feebar ak yéex a ñoom ñaar ñile mën nañoo tiimal li farati ñeel farata yëpp tusubaar tàkkusaan timis gee aw naafilatin ak naafila yëpp mën nañ ko tiimal waaye waaye tey moomu dana tiim alxaadiru ku teew sa yiw ku wér yaa ngi nii teew wér dara dalul la nga am ndox ñu ne mën ngaa tiim lil faraay di ñeel farata yi muy subaar takkusaan timis gexe kañ isa xaafa bu ragalee xuroo jël waxti waxti yaa génn waxtu wa su boobaa tamit loolu ma neen masalal su fekkee danga ngaa ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab kon borom lax dari ne kon nga teew wér ndox maa ngi nii ci sa kanam nga jàpp ne jàpp gën a yéex tiim tiim a gën a gaaw njàpp su ma fi nekkee di jàpp balaa pare waxtu wa faat su boobaa borom Laxdari nee na may nañ la nga baxi fan ndox ma te dem tiimi ndax nga mën a dugal sa julli ga ci biir waxtu wa ndax moom dafa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab moo tax mu sant la loola waaye su fekkee da ngaa bokk ci ñi wax ne dab laab moo gën dab waxtu te ñooña Cheikh na Ahmada Tijaani ca la bokk su boobaa nag moom jàppal donte lay waxtu wi dafay génn nga julli ca biti waxtu wa ndax mu ne alquran dafa nañu ne liy waral ñàkk ti mooy ñàkk ndox rek liy waral ti mooy ñàkk ndox tax alquran defa ne fa in lam tajidu ma an fa tayammamu kon nag fa in lam tajidu la wax bu ngeen amul kon am nañ nag far for suñu jàpp xam nañ kay xaqiqatan man ko am mën a jàpp mën koo jëfandikoo kon dañuy jàpp rek su ko defee nag bu waxtu wa passé ñu julli ca biti loolu ci la Cheikh na Tiyaani d'accord waaye walaaye tayammamu xaadira ku teew sayiw te wér li naafila ti ñeel naafila yi ki nga xam ne dafa teew te wér nii dara dalu ko kooku moom euh, du mën a tiimal naafila lu mel ni dawal ñeenti rakka njëkkatu subaar doo ko mën a tiimal ci masalay laxdar yi nii doo mën a tiimal ñeenti rakka njëkkatu suba njëkk saan naka noonu tamit doo mën a tiimal mën lu mel ni yeneen julli naafila yépp